auzu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnas wasalaatu wasalaamu ala nabiyi alhuda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi ddin bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba aske Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di balu àq ñëpp di ñaan yàlla sunu borom boole nu jéggal nun ñëpp di ñi sant yàlla ci boole gim nu boole Serigne Touba di ko sant ci xéwal yëpp waaye gu ñu koy sant muy bu bees mooy giinu génne léegi rek di ci gën a santaat yàlla ci Serigne Touba dimbali gi nu gi mu dimbali ba na àndaat ak moom sant santle ko yàlla noo ngi ñaan nag yàlla. noo ngi ñaan cant yi weesu ak yii yëpp muy safar yi sunu borom yàlla na ko gërëme lu nu mësta gërëme lenn lu ñu ko defal noo ngi ñaan yàlla na ko sunu yàlla na ci sunu mbég mbégte moo xam ne musu mus musu koo menn mbégte ci lu ko defal noo ngi ñaan yàlla cant gi nu ko doon def muy safar di sant li Sëriñ Tuubaa yàlla yàlla na ko yàlla gërëme noo xam ne musu gërëme lenn lu ko jaamam masa defal diggante nit ak jinne noo koy ñaan yàlla sunu borom ginnaaw loolu noo ngi ñaan yàlla di ko tàllay loxo ci lu ko neex rek lay def Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal ko fi te fexeel ko ba li mu naan lépp ci toolu islam bi mu eggale ko nu ànd kook moom te daje ci ngërëmul sëriñ bi <coughs> bokk yi nag tey euh, bu ngeen gisee nu wax wax jii tey ak yëkkati kaddu yi xam ngeen ni sàqu Touba l'officiel mi nuy def ak ay bis bu nekk muy semaine bu ne jotagul. noo ngi soo a génn ci màggal gi noppeeguñ ci gan ñeeg lépp sax waaye nag dafa am lu xew moo tax mënunoo néeg ba ajjuma nu di ko defaat muy Saxum Touba bu boobaa incha allah li ñu waajaloon mooy fas yéene waxtaanee lii bilan wu màggal gi maanaam les leçons du màggal ci anam yëpp yëpp yëpp bind nañ ko ba noppi loolu lañ doon néggandiku alxames ajjuma nu def ko ci Saxum Touba l'officiel waaye diggante bi nag. mbir dafay xew mu doy waar lool lool lool moo xam ni nag du mën a wéy dafiy yem du mën a wéy ndax dafa am loo xam ni du jar di leeral naan Serigne Touba lii la jàngale woon ak lii la fi nekke woon ak loolu gone yi nekk sax primaire xam nañ ko wax ju ne rek dañ cey wax lañ ca war a wax fasaase ñu xam ko jàpp ko mu yem foofa mooy lan mooy damay dellu si histoire yàlla dimbali na ma ba lu ci bari bu ma koy wax day am lu wees woon nit ñi dañ koy fàtte waaye dama bëgg kenn ku nekk tey nga delluwaat ci YouTube bi jamono yi ñuy def Saxum Touba ci télévision ba booba Saxum Touba rek la tuddoon boo ci demee di nga ci fekk wax jii ma leen di wax ma waxoon ci lii xew waaye jamono jii nag li xew mooy euh, ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Diakhoumpa moom sëriñ Bachirou sëriñ Mountakha taxawulu ko lool mu nekk Porokhane ca daara ja ay at ci ginnaaw dafa ma woo téléphone fekk may waajal waxtaan wu may def Saxum Touba ci télévision ba nga xam ni benn waxtu rek a teem a tàmbali mu ni ma ndax yëg nga li xew ak dégg nga ko ma ne ko déet lu mu doon mu ni ma am na soxna suñuy wax neen dañ koo seexal ba taalibe yaa ngi sukk ci moom di raam naan ko ko tedd ki ba mu duggee sama nopp nag booba benn waxtoo tee ma dem yéeg ci kaw ngir tàmbali sàq ma li ma dugg woon boobu mooy mbëggeel gi ma bëgg Serigne tubaa te tey ko ak mbëggeel gi ma ko bëgg te teyuma ko ñaari yépp ànd ak man bilimbane ma àndatuma ak sama sago ma ne ko baax na dégg naa ko bu ngeen demee ci YouTube bi li ma la wax di ngeen ko ci fekk bañ ko defee damaa daal di wax ni loolu bis ni ki tey nun murit yépp lañu offensé day dakk dama damay egg sax ni ku dib colonel di taalibe ku dib gendarme di bi ku dib policier ku dib bay Faal fu waay nekk nañ ñépp jóg ndax murit lañ bëgg lañ offensé te loolu mënut a nekk ndax sukk ci kanam jigéen di ko wax naan ku yaay ko tedd gi day jeex ba ma ko waxee ca émission ba bu ngeen demee ci YouTube bi dama leen ngeen ko daal di interpellé wala boog fàttali ni Serigne Cheikh Bass yaa ngi may dégg wala dinañ la ko wax sëñ Cheikh Thior yaa ngi may dégg sëñ Cheikh Ndiaye di bëgg néegu sëñ Cheikh Matile yaa ngi may dégg Cheikh Baara Matile di doomi sëñ Cheikh Matile yaa ngi may dégg ne leen leer ni fii nu nekk nii dañoo nekkut sëñ bi mais sëñ bi di ko war a dégg léegi dafa war ndax loolu mun a wéy muy jigéen ju toog ñu sukk ci kanamam naan ko yaay ko tedd ki ci guddi gi ma defee sax moom bi mu minuit daataan jot ci la ko sëñ Cheikh seex Cheikh Sidil Mokhtar dégg ñu leeral ko lépp ak la ma doon wax mu joxe ndigal fa saase Cheikh Béthio Thioune daal di wax ci biir internet bi daal di ni moom day mi ngi jéggalu ci loolu te teg na ko fi suuf waxul sax seexu jigéen waaye seexu boppam sax mën na ko bàyyi tey loolu dem leen ngeen xool ko ci internet bi. kon man jamono yooyu laa rek la woon loola daal ni ceex waxul bopp waxul soxna si waaye ceex bopp mën na ko def fi suuf ab taal bi rek la lii mi ngi ci internet bi ngeen xool ko ba mu ko defee ci internet bi ci guddi gi ca suba sa ca seen TV la ko def ci télévision bi ñëpp dégg ko archive yaa ngi génn xool ko. Hmm, mbokki ca tàggoot yi sama taalubee bopp yi mbokki birit yi yéen waa Sénégal. ndigal ak si na kër sëriñ Bass Abdou Khadir porte parole lu xalif général des mourides nee na xalif bi ko dama wax ni ma ko ñi ma waxe seex yi nañu ko teg suuf ma waxati ab seex loole laa bëgg daal di jëfe ci saase bàyyi naa ko dootuma ko wax seex sépp nag laay waxal bawuma kenn bu ma dégg di képp koo xam ne maa la seexaloon na ne ab seex nga walla nga di ko doxe ndigal laa ko teg naa te sax ne ko man sax de xam naa sama seex gi bu ko bëggee may dootuma ko tudd mun ma dégg yow sëriñ Saali woo la seexal lii nag laay bëggoon yëgal ndigal loolu laay jëfe képp ku ma seexaloon bu ko doxati bu ko doxeeti fàtte ko nan dellu si génn samay taalibe yi ñu ànd liggéeyal Serigne Saliou wa salaam kon mbir mii mi ñuy wax tàmbali wax man waxoon naa ci ca booba muy Aïda Diallo mi ñuy wax dama cee bëgg dikk nag tuuti mooy leeral leen lu gàtt boo gisee boobu ba léegi waxu dama doon may Batma ak di néggandiku walla Cheikh bas ndax damaa gis ni bi fi Cheikh Béthio jógee yàlla def na bi ñu koy jébbal boromam moo taxaw moo ko taxawu ànd ak taalibe bi ak doomam yépp ñu taxaw ko bañ noppee moo dem ba ma Madinatu Salaam moom sëñ Cheikh bas taxaw samp ab taaw muy sëñ Saliou Thioune taalibe bi yépp nekk fa ma jàpp ni kon xëy na bu fekkee ni lu mel nii am na loola da koo yëgagul wala dara la ko mbir mi da koo léeragul ci ni mbir mi fi ñu toll gravité bi nga gër bu ma ne naa néggandiku du ma waxagun waaye nag ma dem ba loo xam ni teg naa ci sama bët gis ko moom Aïda Diallo du ko def góor sukk fi moom di jéblu ci moom mu téye doom nee nañ dañuy ngénte wala dañuy tudd di nangu ay addiya ñuy jéblu ci moom muy jël def ay déclaration bay mel ni kuy gaaruwaale yooyu yëpp man ma teg ci sama bët léegi kenn waxuma ko ma ni yoon wi du lu ñuy foye yoon Serigne Touba wii lu du ñuy foye dama leen di wax nag loo xam ne Serigne Touba ko wax tuuti ba noppi a jàll ku ñuy wax Serigne Modou Khary so dafa mas a ñëw ànd ak baayam Serigne Modou Khary so daa mas a ñëw ànd ak baayam di ziyaare Serigne Touba bi mu ñëwee ba ci Serigne Touba mu ziyaare ba noppi ba ñuy waaj di dellu mook baayam am ku wax doomam wax ni sëriñ bi yàlla nañu yàlla boole ci sa ñoñ Cheikhul Khadim ni ana ko wax loolu ñu ni ko Modou Khary dee ko wax ana ko wax loolu ñu ni ko Modou Xëri fekk baayam la àndoon mu ne ko ñaan nga lu mat a ñaanlu dañu sëriñ bi yàlla na yàlla boole ci sa mu ni ko ñaan nga lu mat a ñaanlu ndax li ëpp ci mbooloo mi ñu ànd ak man li ëpp ci mbooloo mi dañoo mel ni ñu ànd ak man te ànduñoo man ndax li ëpp ci mbooloo mi dacee am ñu mel ni ñu ànd ak man te ànduñoo man bi ma jógee di wut sama borom man sëñ Tuubaa bi ma jógee di wut sama borom adduna damaa topp ñëw topp ma moom àdduna ma gàntal maanaam ma gàntal ko nanguwuma adduna dafa maa ñëw topp ma nanguwuma ko ma të ko bi ma ko tëyee nanguwuma moom adduna mu jekk bi ci yàgg mu dellu siwaat mel ni ku maroog man mel ni ku xaritoog man nga xam ni taalibe bi yëpp dañ koy gis moom àdduna mu ne ci mu ne ca lu ma nekk mu nekk ci biir mel ni ku maroog man dellu si ginnaaw bu ko sëñ bi téye ba noppi loolu moom nee na sëñ bi nee àdduna dellu si ëpp ci mbooloo bi nag gis àdduna soo su nekk ci man ñëw topp ma ñoom ñu wëlbati topp àdduna joojee maanaam bi àdduna fexee dafi pexeem ba ñëw ci man topp ma li ëpp ci mbooloo bi gis àdduna rek daal di ñëw topp def defe ni àdduna def man dama ànd ak moom ñu ñëw topp àdduna joojee mel ni man lañ topp te topp ma àdduna lañ topp ñu mel ni man lañ topp te topp ñu ma àdduna lañ topp dat ni mu mel ni kuy dàq kuy dàq dara mu mel ni kuy dàq kuy dàq dara ñooñu nag nga xam ne ñoom àdduna lañ topp ba noppi nekk fi man mel ni ku ànd ak man te ànduñu ak man maa ngi leen di xamal sëñ Tuubaa ni leen fu àdduna yem ak man fu àdduna yem ak man fa laay ak ñoom fu àdduna yem ak man sëñ Tuubaa fa laay yem ak ñoom loolu nag mooy mbooloo seytaane yi ngay gis yépp te sëriñ bi am na lu mu mas wax ma dolli te sëñ waxi lu wax sëñ bi noonu na seytaane dafa gis sama borom ni ma déggoog yàlla jëfe ndigalu yàlla ba yàlla gërëm ma sama diggante yàlla neex lool lool lool mu naqari ko moom seytaane mu xool xool nu mu koy yàqee mënu koo yàq mu ni xar ndigal ma jóg ñaawal Serigne Touba ndigal ma jóg rek ñaawal ko ana nu may ñaawale day fekk ku nekk ci lu mu lu day fekk ku nekk ci lu mu wërta nekk seytaane ni ko demal tudd Serigne Touba neel neel ci tal bi Serigne Touba yi laa bokk day fekk ku nekk ci li mu wërta nekk mu ni ko tuddal sëñ Tuubaa nel ci murid ji laa nee noonu la ma saytaane di ñaawale loolu nag laa bëgg ñu leer mu mu leer ñëpp ndax sëñ Tuubaa nee na ñi ma topp te topp àdduna fu àdduna yem ak man sëñ Tuubaa fa laay yem ak ñoom àdduna nag fi mu yem ak sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ko mooy bañ noppee gis sëñ Tuubaa fa la àdduna yem ak sëñ Tuubaa kon keneen ku topp ku topp àdduna nag sa yëfi bopp nga topp léegi nag ma ñëw ci li ma doon wax léegi mooy Aïda Diallo yoonu mu wépp wépp wépp nga tooñ waaye ku tuuti nga nag ci yàq dara ci mbirum sëñ Tuubaa te li may xam mooy Cheikh Béthio mi ngay tuddoo kon gëmoo ko boo ko gëmoon keroog ba mu defee déclaration ba dem leen ngeen seen seen TV wala ci YouTube bi ngeen xool déclaration ba mu defoon war ni moom waxul ceex Aïda Diallo waaye ceex boppam sax mën na ko teg fi suuf léew nga ko waat léegi toog di nangu ay njëbal kon boo bëggoon sa beneen ba ci topp du ma ci sori mooy sa digganteeg li xew ci yoonu murid wépp nga xam ni histoire yoonu murid ba mu amee ba léegi ci cheikh Mouhamadul Moustapha ci cheikh Mouhamadul Fadil ci cheikh Abdoul Ahad ci cheikh Abdoul Khadir ci cheikh Saliou ci cheikh Mouhamadul Amin ci cheikh Sidil Mokhtar ba ci cheikh Mouhamadul Mountakha kenn mosu fee gis li nga def jigéen def ko. nga bëgg nag yow nga ñëw fekk Cheikh Mouhamadou Mountakha ay gu set wecc leer nañ rafet lool xol yépp dellu si waat mboolem koy nga bëgg a ñëw nag xajamal ayuk Cheikh Mouhamadou Mountakha déedéet du ma nekk dama ni ayuk Cheikh Mouhamadou Moustapha lii nga def amu ci gug Cheikh Mouhamadoul Fadil amu ci gug Cheikh Abdoul Ahad amu ci gug Cheikh Abdoul Khadir amu ci gug Cheikh Salihu amu ci gug Cheikh Mouhamadul Amin Baara amu ci gug Cheikh Sidil Mokhtar amu ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw di ki nga xam dañ ko dañ ko dañ koo sellal al Mountakha al Mountakha xam nga lu muy tekki yow nga bëgg a ñëw xajamal loolu benn murit du ko nangu. benn murid du ko naw yow da nga yow sëñ Muntaxa nga nga respecté wul benn li may tàmbalee foofu mooy keroog bi ma gisee ñu ne da ngaa summi bi nga muuroo ba summi xam naa ñaari fan wala benn fan nga ma gis nga ñëw Touba acte ba ma njëkk a gis boobu man ngi ko bind denc boobu tey ji laa xaar xamoon naa ni yow mii fi nga fii nga jëm ndax ñëw ngoo jëm kanam sëñ Muntaxa ànd ak délégation bu jigéen xam naa ni waxuñu sëñ bi dëgg dëgg dëgg booba yaay kan ak li ngay ba nga ñëwee foofa itam yaa ngi toog lu kenn musta def waxuma la sëtub sëñ Tuubaa du ko def ab cheikh du ko def kenn du ko def da ngaa toog ci kanam sëñ sëñ Muntaxa ferenklaayu guléet jigéen toog ci kanam sëñ Muntaxa ferenklaayu da ngaa ferenklaayu dem leen di xool ngeen xool internet ay rajo dafa toog ci kanam sëñ Muntaxa ferenklaayu beneen bi ci gën a garaaw mooy ma am duut lool ci yow ñi nekk sa ginnaaw ndax jàkkaarloo woon ak sëñ Muntaxa nii ma toogee nga xam ne booy nuyu sëñ Muntaxa da nga war a jàkkaarloo moom sukk fi suuf yow dangaa toog nële dànd ko ba noppi jàkkaarloo wul ak moom maanaam sëñ Muntaxa nii la jublu yow nga jublu nii di wax moom loolu guléeg ci histoire yoonu booba laa am ay amoon na ay inquiétude booba am na lu bari lu ma xam ma xam ne kii am na leen lu xew toog ci kanam sëriñ Muntaxa di jigéen nee naa la sëti sëti ko aju boo sukkee ci kër kanam sëñ Muntaxa da ngay raam waxantu ba la yow nga frenklaayu sëñ Muntaxa di wax moom da ngaa jublu ne sëñ Muntaxa jublu ni nga jublu ne di wax ak moom yooyu yëpp ay signe la ginnaaw loolu bu jàllee fi nga doon defee li nga doon def ci ngaabu da ngaa xamul histoire yoonu murit ndax xamoo mbóot yi nekk ngaabu ak la fa nekk xamoo ko sirr bi nekk ngaabu xamoo ko def nga lu garaaw garaaw garaaw lu la mën a coûter lu cher ngaabu fa nga doon defee la ngay def amul benn doomu Serigne Touba bu moo sa taxaw nangu njibal benn doomu Serigne Touba ba ci soxna may mëntul ko soxraa mi fi mujj. yow boo doon jàmbaari murit wala nga bëgg a doon jàmbaari murit Aïda ba Badaloo tey bu cheikh doon am war naa mën a cheikh li mu def ci yoon murit lépp soxna Awa Ndiaye firi prix jàmbaar yooyu nga xam ne ay jàmbaar yi yoonu murit lañ dem nañ ba jóge fi tey ñu nga bar sàq yobal xiyam àjjana def fi loo xam ne ñu bari duñ ko def ak ñu mel ni moom jënd ñu mel ni moom yow nga xëy barki dem rek ñëw taxaw di wax loo xam ne bëgg agressé yoon bëgg tilimal yoonu murit non du mën a nekk te war Sëñ Tuubaa nag bu nu war sëñ Tuubaa sëñ bi nañ koy wax li am ndax bu ñuy indeeti nit ci sëñ bi ne sëñ bi nañ koy wax li am man de gëm naa ni lii Cheikh Issa Issa Mbacké yëgu ko gëm naa ni Cheikh Moussa Nawel yëgu ko damaa gëm ni man maam na yëgu ko damaa jàpp ni sëñ Cheikh Latif yëgu ko sëriñ taxaam mii nañ ko xam buñ ko foyee kuñ jël rek indi la nga toog ak moom toogit woo xamante ni bi sax wér na ni am na ñoo xam ne dañuy jege yàlla te duñ toogee ak moom bu nu war sëñ tubaa ayu Cheikh Muntaxa gii nga xam ni lu rafetoon day gën di rafet bu ko kenn bu ko gét kenn jëma tilimal duñ ko may kenn nag dama ni ñëpp laa wax bàyyi faal mun képp fu waay taxaw ay rajo arrêt na dakk mënut a wéy dafa mënut a wéy léegi bu fekkoon ni bëgg nga ki nga xam ne moom moo moo la fi bàyyi tey nga toppat ci ginnaaw bu Cheikh Badiou ba ko bëggoon taawam bee ngay dem topp ci ginnaawam loo am jox ko loo xam wax ko ànd ak moom ngeen dundal la bu doon def. sanc ay daara topp ci ginnaaw Cheikh Saliou Mbacké wëlbatiku dem ba man ci murid ji loolu moo wax ji na ñeneen ña def loolu du ci sori li man soriwuma ci wet googu li may wax daal mooy day arrêté du mën a nekk waaw yoonu murid moom duñu nangu loolu dafa mënut a nekk fan nga ko teg hmm? man bëgguma sax di parce que dama ko dama minimiser woon ba ëpp boo déggee man la waxuma dama ne sëñ Cheikh bas moom mi ñëwoon taxaw rob beeg lépp. ñëw samp sëñ Saliou Gueule Tapée dama ne woon xëy na balaa yàgg dina intervenir rek du jar sax sëñ Mountakha di wax waaye yow moo lay woo ne la lii na dakk ndax mënut a parce que nag yoonu murit du ma fi nekk naan lii ko sos ak lee ko sos loolu wax taxaw sax di ko wax ngir sa mbir yow day ëpp loolu day ëpp léegi daal na murit yëpp xam ni lii ngay def na fi yem na fi yem li tax nga xam ne àdduna dëgg sax a doon la doon nag yi nga jël jële ko ngaabu bu àdduna rek bu yàlla rek taxee indi nga ko ngaabu nu ñu koy war a def nga di ko def ñu jiital nag yi jaar ci biir circulation bu xat bi jaar ak moom ba dugg Touba ñëw ba Touba delloo ko ngaabu loolu lan lay tekki lu yàlla tax mu loolu lan lay tekki dugal nag yi ngaabu jëli ko ngaabu indi ko ba Touba delloowaat ko ngaabu pour démonstration de force non démonstration de la faiblesse démonstration de la faiblesse Aïda na fi yem na fi yem te dinañ dem suñu toxa ñëppay jóg dama la ko wax léegi na yem bu fekkee ne bëgg nga lu baax demal nga laxasaayu toppi ka nga xam ne moom nga war a topp wala nga liggéeyal sëñ Tuubaa ay milliards jaaxalul sëñ ay nag jaaxalul sëñ Tuubaa ay bëy jaaxalul sëñ ay xar jaaxalul sëñ fii nit ñi def nañ ci màggal gi loo xam ne genn wàll ga rek defoo ko ci genn wàll ga laa wax da koo yëgul dañ ko def ba noppi kenn yëgu sëñ Tuubaa na foofu na yem nag sëñ Muntaxa ay sëñ Muntaxa gii doo ko tilimal du man a nekk waa Daaru Minam académie Daaru Minam sax tey ak sëti sëñ Basiru yëpp ak képp ku di murit laa wax képp ku di fu waay nekk xam nañ ne yow lii du mën a wéy du du jàll du jàll nañuy wax sëñ Muntaxa lii xew ñi niti àdduna yi bu ñu ñëwatee ci ñoom nañ tey du sëñ Muntaxa ku ñëw rek war nañ la war nañ la bàyyi nga toog nu la neexee rawatina nag ñenn ñi d'accord jullit nga ta lépp mën nga waaye nag am na loo xam ne dafa jëkkul sellaay suñ mu taxaw ëppaat nag benn toogaay bi ak ñenn nit ñi ñu ñëw di toogee moom nen ni ëpp na loolu nag fi la yem na ko murid yëpp dégg te ñëpp nga offensé nag tout tout la toute mu communauté murid tout musulman yëpp waaye na la leer ni lii du wéy te dafay yem Aïda jàll yow laa wax lu leer laa la wax nag yoonu murid yëpp la jóg nañ te sëñ mu taxaw lii da ci jot munoo toog fii taxaw góor toog sukk lu gën a ñaaw image boobu ci àdduna yow xam nga fi nga ko defee jigéen ji fi nekkoon ba ñu ko wax soxna Mbène Ngabou xam nga fa xam nga fan mooy Ngabou xam nga soxna Mbène Ngabou mooy kat xam nga li nga doon def gravité bi xam nga nu mu demee Ngabou gi nekkoon soxna Mbène Ngabou fa la nekkoon xam nga gravité bi doomi Serigne Touba yi nga xam ne kenn bëggu ci doon dara ñëpp taalibe sëñ seen lañ doon lobby yi nekk ci ginnaaw yëpp nag xam nañ ko xëy na am na ñu xamul mais ñun xam nañ parce que on prépare beaucoup de choses pour dugg ci biir yoon murit ñi ngi préparé lu baree baree bari mais lenn lépp échec lay doon lu fi mës a jaar ginnaaw colon yi ñëwul jikoon taxaw def seen armada seen i seen lépp ba noppi tey ñu am gàcce bay ñëw di sukk karam sakkantu balaa rek luñ nangulul koo xam ne su koo jébbalul duñ ko nangulul koy wax ni jébbal naa luñ nangulul ku koo xam ne su koo jébbalul duñ ko nangul koo xam nee nga sukk nga jébbalooy kenn du ko nangu foofu laay mën a yem nag Saxum Touba bi incha allah dinañ ci dellu si lii de loo xam ne c'est spécial ne ko ñëpp dégg nag adduna sëpp jóg nañ yow Aïda Diallo nga seetlu dem tuubi jéglu ji wala nga taxawal sa yëf loo xam nga defe ko waaye ayu sëñ Muntaxa gi doo ko tëlimal yoonu sëñ Tuubaa yi doo ko tëlimal mënu ko lii sax ëpp na ci wax ji ñu ci ëpp na ci sëñ Cheikh Bass ngi may dégg ñu ma ko waxoon kilifa yu wër sëñ bi yëpp nga may dégg adduna sëpp nga may dégg duma ci soreeti jeex na foofu lañ ci yem te it say wayjur yaakaar na bu fekkoon ne ñoom am nañu xel muy sa wayjuru góor wala jigéen jot naa ne war nañ laa woo ba ñu wax ak yow say waajur waroon nañ laa woo ba ñëw ñu wax ak yow bu fekkee ne li leen animé liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ndax lii moom mën ngaa waat ci alxuraan du wéy yow mën ko ko waat ku di julli mën naa waat ni lii du wéy kon foofu laa yem ak yéen ba àjjuma incha allah ñu soog a ñëw ci Saxum Touba jërë ngeen jëf.